yées tabaarkàlla salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum képp ku may seetaan El Vision Médias na la saa su ne rek nii laa koy defee ngeen ànd ak Sister Zeyna la puissante émission yow yaay kan émission yow yaay kan ma ko am koo xam ne nag euh, benn daanaan macha boo xam ne tey euh, daw ñëw euh, ma invité ko si sama plateau muy Pape Pape nuyu naa la. maa lay fay Zeyna. maa yaa ngi am jàmm maa ngi am jàmm bu baax. Pape ñi lay seetaan bëgg nañoo xam yow yaay kan comme ni ma koy defee nee naa képp kuy nga xam ne yaa ngi ci aar wala yaa ngi def lenn euh, bàyyiwuma la. yow nag nga yëngu ci li nga xam ne moo nekk wàllum couture. Mm-hmm. Euh, bëgg naa daal euh, maanaam say mbokk say xarit. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñooy say client bëgg na ñoo xam kan mooy Pape Pape yaay kan. waaw man maa ngi tudd Abdou Ndiaye mooy wax Pape Ndiaye maa ngi dëkk Diamaguène Sicap Mbao mm-hmm. maa ngi yor fii benn atelier ak centre couture. ay sat sabara. waaw kooku mooy Pape Ndiaye Pape euh, Pape maa ngi lay dégg say biir wax nga ne yaa ngi yor li nga xam ne moo nekk centre ak atelier ñaar yoon nan nga koy boolee waaw sama atelier xam dama fa ay employé yoo xam ne ñoom ñoo may liggéeyal foofu mm-hmm. sama centre bi tamit man maa ko gérer ak sama yeneen ay moniteurs yoo xam ne mm-hmm. si biir centre bi lan nekk di ma jàppale mm-hmm. ñu nekk ñoom it ay maître moo tax du ma sonn quoi dama am ñu may accompagner quoi moo tax. est ce que mën nga ma ñëwal tuuti tuuti rek si euh, wàllum li nga xam ne moo nekk sa wàllum euh, couture bi mooy fi xale yi di nekk di jàng. waaw foofu xam centre formation la centre formation bi dañ ko créer pour dimbale askan bi. Mhm. parce que comme yow da jàng métier ñu dimbale la. Mhm. ñu ne pourquoi pas ñu tijji benn centre formation. Mhm. pour dimbale ñu ni suñuy suñuy jarbaat. Mhm. ak suñuy rakk. Mhm. waaw loolu moo tax ñu tijji centre bi di ci yëngu. Mhm. en général dama doon gis bu njëkk jigéen euh, góor kese moom mooy def li nga xam ne moo nekk moom mooy ñaw di créer mais léegi euh, damay gis xale jigéen ñi ñoom ñooy créer di ñaw di def ay affaire da ngay gis jigéen boo xam ne sax dafay daal di li nga xam ne moo nekk atelier indi fa euh, du mën a ñaw mais day indi ñi nga xam ne mën nañu ñaw mais moom créer kese lay def. waaw xam nga métier Ah, dafa nekk métier moo xam ne képp ku am xaalis ci nga bokk. waaw mhm. ah, métier bi moo doy waar. Mhm. ngay am sa xaalis say million après nga tijj sa atelier am sa matériel. Mhm. jël say embosement moo tax métier bi dafa xaw a doy waar. ñun ñun góor ñi sax dem nañ ba tiit. parce que métier bi jigéen ñi dañ ko commencé nangu suñuy suñuy loxo waaw waaw loolu tam bëgg naa nga ñëw ak seen man ndax métier bi léegi koo wax rek ñu ne la jigéen ñi ñooy ñëw ba pare hmm. jigéen ñi lu ñuy créer jigéen ñi nàngam jigéen ñi nàngam hmm. loolu bëgg naa nga ñëw seet seen man tuuti daal waaw xam nga dafa facilité métier bi dafa dafa nekk loo xam ne dafa facilité si si hmm. jigéen parce que boo xoolee jigéen création am surtout moom lay wax chaque jour sama élève yi mm-hmm. su fekkee si wàllu taybaas la mm-hmm. ñoom booy xool taille sax ni ñu koy ñawee ak ñun ni ñu koy ñawee yenn saa yi am différence parce que ñoom am nañu foo xam ne mën nañu ko natt nga mm-hmm. ñun centimètre ñun professionnel dañ koy jàng si centimètre ak dessin pour maîtriser ko mais jigéen nag bu ñëwee ba day gis muy teg di natt ba keroog tebaas bi di baax waaw souvent sax jigéen bu ñëwee taille chien ba pare duñ ko indilaat naan ko taille chien bi dafa def nii dafa def naa parce que moom dafay daf koy natt si moom si boppam wala mu wut koo xam ne tolloo naa parce que amul complexe boobu mhm. bu dee ñun góor nag am nañ complexe boobu def boobu parce que foo ko natt souvent boo woowee jigéen di ko nattal ak affaire yooyu dañ ah souvent daal euh, su ma su ma juumul kon yéen dafa mel ni loolu moo nekk seen problème dafa mel ni loolu moo nekk seen problème comme natt beeg yooyu. Mhm. problème natt problème natt la yenn saa day gis sa benn la doon parce que natt bi xam ñoom comprendre nañu. ah ok ok ah, yow doo sa <laughs> jël mesure sax yow doo bàyyi xel ni yooyu quoi en tant professionnel. kooku de xanaa ah. bàmba la moom bàmbaay def yooyu. waaw <laughs> ah, gis nga moo tax métier bi dafa xaw complexe. <laughs> ku nekk xam na ne yor xale dafa metti mhm, mhm. surtout jigéen euh, nga boole leen ñu daje. Euh, nan ngay dundee loolu ndax métti na wala méttiwul. waaw métti na si benn côté moom xam nga jigéen dafa naqaree nekkal encore ñu xam nga jigéen fu mu nekk fépp fu mu nekk te ay jigéen kese dañuy wujje mhm. loolu mooy problème bi mhm. mooy su kuy defee lii sama moroom day bëgg a def lii loolu moo tax mais nag ñun yàlla dimbal nañu ba xale yu ñu yor amuñu problème mhm. mooy bu ñu ñëwee dañoo fekk suñu nekk ay professionnel encadré rek moo ñu tax a jóg dañuy encadré si école bi même si biti tam dañuy encadré parce que ñun même bu fekkee heure wàcc jot na ñu ngi taxaw si buntu école bi kenn ku ne ñu xool fa nga jëm même bu fekkee ne nii war a jëm te foofu nekkul sa kër naa la eh, foo jëm ñoom sax miin nañ ko si ñun mhm. même souvent sax même budul heure liggéey bu ñu tasee ñun si mbedd sax ñoom bu fekkee dañuy doxee leen dañuy tiit. Mm-hmm. parce que ñun tamit dañuy defaale éducation mm-hmm. si si si mm-hmm. biir. mais nekk ak jigéen moom yow yaa am gën a xam yow jigéen nga. xam nga ne moom lu doy waar la yombul. mais nag yàlla ñuy dimbale quoi. Uh-huh. Euh, nan ngay élèves yi ndax euh, parfois da ngay gis nit koo xam ne dafay jël doomu jàmbur di ko liggéeyloo yor ko. mu dem ba nga xam ne kii war na am diplôme am nga xam ne bu ko wanee feneen du sonn après mu wocc ko mu dem est-ce que loolu yaa ngi koy dund ak sa élève voilà. waaw xam nga ñun suñu élèves yi tamit diplôme bi ñu leen di jox yenn saa yi nañ leen di ñu liggéey parce que ñun dañuy am ay contact fu ne ñu naan ñu xam xale yi génnaguñ pour ñu ñëw liggéey yenn saa yi nag ki nga génne moom dem feneen liggéey da koy da koy arrangé mais toog këram tamit yenn saa yi da leen di arrangé am na koo xam ne da koy jox diplôme mu dem sëyi jëkkëram du ko bàyyi mu liggéey mais waaw jigéen ñi loolu mooy problème <laughs> waaw man su ma ne li ma jàngal si métier si jigéen ñoo xam ne xaar ñu seen diplôme mu toll waaw kenn xamul nu mu toll <laughs> loolu mooy problème bi jigéen ñi parce que jigéen ñi fu mu ne nii souvent léegi nag gis athlètes yi tey dëgg-dëgg jigéen ñi ñoo ko ñoo ko occupé. waaw dégg naa mbir yaa ngi si lekk sa xaalis de macha allah dégg naa yaa ngi si lekk sa xaalis bu bëree bëri bëri. <laughs> loolu moom ñu bari loolu mooy may foog dinaa Pam Ndiaye ma ngi ay millions. Ah, ah, mais yàlla ne nañu waxante dëgg macha allah <laughs> ah. yaa ngi yor sa atelier. Mm-hmm. yaa ngi yor centre pour xale yi mhm. te xale yi sax fin du mois defe naa danañ génne xaalis daal di fay ndax métier moo xam ne tamit mën nga ci am ay million après xam man boo xoolee métier bi mhm. man sama atelier laa ëppoon xaalis sax si centre bi mhm. man bi may gérer dëgg sama sama atelier si laa ëppoon xaalis parce que boobu dama daan toog di am ay ñaw client di am ñaw mariage mais client yu bari léegi dañu may daw parce que dañuy dañuy defe ne su ma joxee ñaw am jot bi parce que chaque jour dañu école bi benn temps bu tuuti laay am si laay profité nekk sama atelier di fa ñaw ba benn yenn saa ma dagg jox su may xale loolu moom a dimbal sax mooy xale yi ma nekkal déggal nañ ma ñoom ñoo may jàppale si kii may am may am wecc tuuti si atelier bi <laughs> mais centre bi moom loo si xamul social bi moo ëpp <laughs> foofu paiement yi. xam naa élèves yi lu ñu toog fii moo tax après dinaa leen dalal sama plateau moo tax waaw ñoom boo leen laajee <laughs> xam naa moo tax patron bi nangul nangul wax maanaam secret bi nga xam ne am na euh, ci biir. <laughs> non secret bi kay mooy social bi moo ëpp paiement yi. waa léegi dangoo dangoo wax loolu léegi nañ jàll ci leneen rek. ñu daal di waxtaan daal di peeloo dëgg neexul. Euh, kan moo nekk sa ginnaaw. ndagam nangoo wax élèves yi lu ñuy fay tax xaalis bi am na wala amul parfois muy mën di jaar ku man sama ginnaaw kenn fi amul kenn koo xam ne dina la ah. jàppale ñëw na la pap ah na soma ngi nii defal li defal li te dégg naa yaa ngi waajal lu rëy waaw man moom sama ginnaaw dëgg yàlla kenn nekku fi mhm. bi may débuté sama alalu bopp laa débuté liggéey ak ay quelques banque mhm. mais fu mu toll nii sax dama arrêté liggéey ak banques yi di liggéey ak sama poos mhm. sama sama sant lu fa nekk man maa ko fa def xanaa benn ay sat sawar bi ma ko tuddee nga xam ne yenn saa yi moom dina ma dimbale si yenn moyens yi waaw mais à part kooku yaakaaruma ne am na keneen quoi lan ngay waajal waa Sénégal yi. li ñuy waajal mooy remise de diplôme deuxième édition. parce que daaw defoon nañ ko. waa El Vision ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko filmé woon. mais bii dafa fekk yéen ngeen tijji seen studio bu bees. foofu tamit dinaa fa lancé après si dernière émission bi foofu tamit benn affaire bi may lancé askan bi. Euh, édition bi remise de diplôme la boo xoolee daaw 17 personnes lañ génne mais xam ñun suñu école bi li mu wutee yeneen école yi mooy. ñun suñu diplôme doo fa am 3 ans rek ñu jox la ko ñun suñu diplôme da ngay liggéey def ay examen. ñu ñu tànn si ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo qualifié ñu génne leen. comme école daal comme école mm-hmm. waaw ñun foofu ñun ñoom loolu moo tax suñuy suñuy élèves bu ñu génnee rek dañuy qualifié. comme en général nit mm-hmm. ñu doog leen a jox seen. waaw am na am na rek ñu def seen remise de diplôme rek joxe joxe jox élève bi diplôme mais xamul dara. Mm-hmm. da ngay gis élève bu génnee centre day dem si si atelier. man moom yàlla dimbali ma sama élève bu dem si benn centre wala mu dem si atelier. lu tax loolu. waaw parce que qualification bi la professionnel lañ ay professionnel lañ te li ñu leen di jàngal qualité la man am naa élèves yoo xam ne même pas 3 ans avant 3 ans yi 2 ans yi demi wala 2 ans rek dañuy qualifié dañuy xaar seen diplôme mais ñoom dañuy pare si dagg si wàllu ñëw parce que ñu dañoo boole couture bi ak coupe bi moom mais fekkee yenn écoles yi nag ngay gis dangay chaque semaine benn yoon la élève bi toog si machine ñun nag chaque jour subaa ngoon élève bi si moom rek la des day toog si machine day ñaw loolu moo tax formation bi gaaw waaw léegi nag centre fii nga xam ne yëpp ñu ngi ñuy toppandoo loolu waaw parce que ñu it moo ñu gën a pour suñu rakk yi suñu kii mën a am. qualification professionnelle. Euh, maa ngi dégg say biir wax sànq rek ngay wax maanaam euh, danga koy def rek te yàlla rek a tax. di mhm. jàppale maanaam xale jigéen yi. Mhm. ndax boo xoolee ñi nga yor macha allah. Mhm. tey buñ fa nekkul woon amaana leneen wala leneen wala leneen. mais yaa ngi jël xale jigéen yi di leen di leen dajale di leen jàngal métier. Euh, lan ngay wax ñi lay seetaan pour maanaam pour ñu jàppale la wala pour ñu dimbali la wala nguur gee wala kenn bu la déggee. waa ñu ñoom ñu ngi xaar jàppal ñëpp jàppale ñu parce que soxla nañ ko nag parce que boo ñëwee centre bi nga xam ne fii am na lu mu manqué xale yi jàmbaar lañ ñun jàmbaar lañ parce que li fa nekk ci matériel ñoom ñu ngi ciy góorgóorlu di ci liggéey waaw di ko di di di ko ñàkkante foofu ay heure kii bu ñawee benn heure bi jóg keneen ñu xam ne loolu gënul mun sañoon élève bu ne day toog ci machine mais nag ñun suñu poste eggul foofu ñu ngi woo ñu nekk ci dëkk bi nga xam ne ñoom ñooy monsieur le maire ku mel ne Coumba Ndoffène ak ñeneen mais de la ville Pikine comme euh, Timbo ak kilifa yi nekk ci biir dëkk bi ñoom ñëpp ñu ngi leen tàllal loxo ñëw nañ jàpp si école bi parce que seen i doom ak seen i ñoo fa nekk soxla nañ kun jàppale suñ taxawee fii ne soxla woon kun jàppale wax ñu dëgg mais soxla nañ kun jàppale am ñu complexe wax ko parce que li ñu fay def si social moo ëpp fuuf lañ fay gagné loolu moom ñoom élèves yi seen bopp ñoom boo leen ko waxee dinañ ko xam waaw léegi euh, leeralal waa Sénégal li nga xam ne yaa ngi koy préparé pour def ko yàgg say élèves après ma daal di dalal quelques élèves rek si sama plateau ma waxtaan ak ñoom tuuti. waaw ñu ngi ñu ngi le bii di ñëw le 16 mhm. février bi. Mhm. dañu am remise de diplôme. Mhm. am élèves yoo xam ne dañoo pare seen formation. ñu leen di remettre seen diplôme. di wax askan bi jàmm gën si Kambaaw ak li ko war yëpp nañ ñëw si événement bi. ñëw jàppale ñu. am na spectacle am na lépp. événement bi kañ la événement bi le 17 février bii nii incha allah mooy dimanche bii ñu ci lañ koy def. Mm, lan ngay tàggatoo ak ñi lay seetaan boo pare bu fekkee ama amaatoo beneen message boo xam ne yaa ngi koy lancé ci biir El Vision Médias. waaw li may tàggatoo mooy maa ngi ñaan parents d'élèves yi. Mm-hmm. seen doom yi nekk ci kër yi nga xam ne dañuy def ñu dara. Mm-hmm. ñu dugal leen ñu jàngi métier comme jàng bi rata nañ ko. Mm-hmm. ñu jàng métier métier ak jàng réussir yëpp benn la. da ngay jariñu rek. te métier bi ñu bari ñu ngi ci jariñu man de wax dëgg lu mu am ci laa am. waaw maa ngi ñaan parents yi d'élèves yi ñu dugal seen doom yi ci métier mi te respecté tamit métier métier mm-hmm. métier mu am solo la mm-hmm. li may waxtaan mooy El Vision na ko askan bi jàppale mm-hmm. dañoo nekk biir jàmm gën si gàmbaaw nekk seen i doom ah, ñu jàppale leen ay ndaw ñoo fi nekk di liggéey nekkuñu fii nag su la def mën mën ngeen def leneen mais dama bëgg askan yëpp ñu jàppale li ngay dem di wuti feneen média di ko wuti feneen mu ngi fii jàmm gën si gàmbaaw kon nañ jàppale ah, jeunes yi nga xam ñu ngi yëngu si côté yëpp culture rek lépp na leen jàppale ñu avancé. man donc loolu laay ñaan waa askan bi ba pare jàppale centre formation Aïssata Sabo Couture. waaw euh, di la jaajëfal bu baax a baax a baax rek ma daal di jël quelques élèves rek daal leen di dala sama plateau rek daal di waxtaan ak ñoom. macha allah yéen a ko gisandoo ginnaaw bi ma dalalee ki nga xam ne moom moo nekkoon Pape dalal ko sama plateau macha allah mais nee naa la du ma bàyyi benn yoon damaa dalal ay élèves am ñi nga xam ne moo ne moo nekk centre bi mais dafa am ku nekk sama wet dama koy daal di dékk sama micro rek ma daal waxtaan ak moom nuyu naa la. fay naa la mbaa yaa ngi am jàmm. Euh, tey nag ñu dalaloon seen patron fii mu nekk Pape bëggoon naa nga wax ma ci métier mi nga xam ne yow dugg nga ci ndax en général dañ doon ma wax seen patron ñoo doon ñaw mais léegi gis jigéen ñi léegi ñoo opté ñaw bi di ñaw waaw métier bi dafa nekk loo xam ne métier tailleur dafa nekk dafa nekk daal métier bu noble métier bu neex. Mm-hmm. loolu moo tax ñun ñu gis ko bëgg ko dugg si. Mm-hmm. Ah, avant ñuy dugg si tailleur tamit am na feneen fu ñu jaaroon doon nañ jàng ak liggéey yeneen liggéey daal. Mm-hmm. mais bu ñu ñëwee si PAM Ndiaye ba tey daal rëcc wuñ ko. lan moo tax ngeen opté ñëw ci PAP euh, comme ni nga ko waxee léegi yéen a ngi doon def li nga xam ne mu nekk jàng ngeen jóge ci jàng ñëw ci moom ban changement ngeen gis bi ngeen ñëwee ci moom ba tey. ah man damaa jaar ci beneen centre jaar naa si ay centre doog a ñëw ci Pam mais li ma gis si Pam Ndiaye gisuma ko ci beneen sant wax ko dëgg yàlla. Mhm. chaque jour dama naan Pam bu loolu may gis sax duma ma génn école bi. bu mhm. dul xanaa mu jox ma di diplôme wala ma dem sëyi. Mhm. parce que li ma gis fii sant boo xam ne dangay ñëw toog si machine suba ba ngoon jot di ñaw. te bu ko neexoon mu ne du ñu ñaw suñu ñaw bopp dañuy ñaw ay ñawam mais defuñu loolu daf ñuy ñaw daf ñuy ñaw suñu ñaw bopp nu ñu neexee bu la neexee sax nga encaissé ñaw ci ñaw ko. boo paree fayal sa bopp suñu parents yi sa sonn nañ ci loolu. kon ok kon yéen euh, su ma déggee say biir wax dangeen ngeen di dem ci biti ñu jox leen ay ñëw yoo xam ne dañ leen di fay xaas ngeen ñëw ñëw ko ci biir tey atelier bi. waaw te Pape Ndiaye ñu fayee ko sax. ah maanaam daal seen pencom daal ngeen di am daal. ah kenn du yéen yéen daal yéen a ngi bénéfice daal <laughs> bëgg naa lii soxna si nuyu naa la. fay naa la mbaa yaa ngi am jàmm ça va lan moo tax liggéey bi nga xam ne moo nekk wàllum ko waaw métier bi moom daf ma yàgg a neex. Mhm. parce que nee naa ba ma xam ne ko ba tey ci laa nekkoon. Mhm. nekk ci atelier yi sama atelier ma yi doon fa jàngee ba yàlla def ma ñëw ci PAM Ndiaye. Mhm. instant bi métier bi fan la la yóbbu. yóbbu na ma fi sori parce que daan na woon dagg mais léegi maa ngi dagg maa ngi ñëw. Eh, instant bi kon lan ngay xaar ci PAM. pap dañuy xaaj moom lu dul mu euh, jàppale ñu rek waaw. jàppale leen daal kii daal waa El dafa mel ni ku ku ku xaw a timide daal ni naa la ba tey duma bàyyi benn yoon am na ñu nekk sama wet damay daal di dalal leen rek daal di waxtaan ak ñoom tuuti rek ñu daal di ñëw tàggoo léegi léegi. Euh, nuyu naa la. mbaa yaa ngi am jàmm. yow moom lenn rek laay laaj instant bi euh, avant ngay ñëw ci ki nga xam ne moo nekk pap est ce que duggoon nga école wala nga am nga foo jaar wala fenn fenn wala da ngaa tëb tëb rek dugg ci métier couture bi waaw man moom avant ma dugg centre Pam Ndiaye dama doon jàng école mais dama jàng ba si yàgg ma gis ñaw mu neex ma ma yàgg bëgg lan moo tax eh! <laughs> man bëgg naa lii de neen dafa yàgg bëgg sañse kon yow bëgg sañse moo tax nga bàyyi école ñëw fii jàng daal di ñëw si Pam Ndiaye may jàngal ñaw mhm. yàlla def naa aw ma fa sax presque 4 mois après ñu commencé dagg instant bi amagoo fa 4 mois yaangi dag. ama avant ma faa am 4 mois. boobu ma ngi <laughs> di ñaw sama bop. Bam soti damay bayyi dem di dag di ñaw di ñawal sama bopp ndax man tamit dama bëgg sañté. Euh, da nga bayyi jang bi rek dem. dama bayyi jang. bi bi est-ce que amo dara lo ci rëccu parfois nga tok nem am ah, na rëccu na sama jang bi ma bayyi dem di nan damay ñaw ndax ñaw bi léegi xalé jigéen yépp nga ñaw meer yeeg pa yeeg ko ko wax mu ne day coup pour ñaw mbaa do ko rëccu. Tay damay tok di kontaan ci sama bop. Mm. parce que ma tok gis ne lee musuma suma foog ne ko mën mais ma dugg Pam yaay jàppale ñu vraiment day jàppale élève yi da ngay ñëw tay mu jangal la pédal bu suba mu dagal la malikaan nga ñaw balaa ginaas ba kon man tay ji damay ñëwal sama bop di ñëwal samay client eh way déggal li te xalé nak dañu am seen client bop yeen pa yeen yeen pa mi fu yeen nak client mi de ah élève am yi de li ngeen am seen client am ni fay ngeen dag di ñaw fay ñu dag di ñaw di lekk xaalis ay <laughs> li de amul fenn Sénégal boo nekkee ci couture di nga fa am 3 an comme fi ma nekkoon 3 ans far yàlla ma def fa un mois dégagé ndànk xale yi nag nee na dañuy encaissé nii sama patron nag parfois ma def ko lool ma dem liggéey gàddu caméra yi ma dem ñu jox ma penco ma jël de ko sama poche dëgg neexul nuyu naa la. maa ngi lay am jàmm. waaw maa ngi yow Iba du nga wala dangaa muuru rek seelal ni. <laughs> waaw damaa seelal rek. dangaa seelal. Uh-huh. dangaa seelal euh, pourquoi nga dëgg ci ci ci ci ñaw mi. waaw ñëw bi moom dama see dama koo gisoon mu neex ma trop boobu maa ngi jàngi école ma jàng ba troisième gis ni jàng bi daal doxul ma ni. naa dem troisième sori na de. sori na kay. lan moo tax nga bàyyi jàng bi tam na affaire yaa ngi doy war de <laughs> ah. parce que tamit dama yaakaar ni réussir moom nekkul si jàng kese la nekk. ndax da pensa da gis nit koo xam ne dafay jàng bu sonn du du du mhm. am dara ci jàng bi léegi élèves yaa ngi daw di utimee ci dëgg neexul gis naa fi ñoo xam ne dañuy jàng ba am seen i diplôme lu yàgg te mënuñu fexe ba lekk ñaar dërëm sax si li ñu jàng mhm. te man tailleur bi maa ngi siy sant yàlla bu baax ndax maa ngi ñëw di encaissé waa di faj samay soxla <laughs> mën naa tey laa yombi métier bi bi nga ci liggéey ba tey yàgg na wala yàggul non amaguma fi deux nag amaguma fi deux ans mhm. yaa ngi dagg carrément di ñaw waaw maa ngi dagg di ñaw modèle bu ma gis bu ma ko bëggee ñaw dinaa ko ñaw ah yéen de dangeen ma ñawal dimbali leen ma la yéen ñaar yéen ñi ñëpp taxaw fi ku nekk na ma kubal man moom robe rek laa bëgg may def muy wàcc rek ndax saa su rek damay daay taxaw Pape tamit dina ma ñawal mm. euh, lan ngay wax lan ngay wax Pape sa patron comme ni ngeen ko waxee léeg léegi macha allah déglu naa kàddu yi rafet na trop Euh, comme ni ñu koy waxee nee na boo bëggee xam doomu aadama da ngay dem ci ay mbokkam wala nga dem ci xale ndax xale ne nañ xale daal maanaam du fàtte ndax yéen ñi ay xale ngeen yéen ngi daal seen doole bëgg lu baax ndax tey ba la ñëwoon ci paab mu def la naka sudul defe naa doo leen fa yàgg mhm. euh, lan ngeen di wax euh, seen patron Pam Ndiaye moom amuñu fayam parce que sant bi daf ñu jàppee comme ay doomam wala ay rakkam amuñu fayam maanaam daal lu nekk la ñuy defal mhm. weer bu deewee sax bu ñu yeexee fay duñu wax dara mënoon a nekk ku fayul mu dàq la mais weer bi mën nañu toog lu mat ay 2 mois du ñu fay doo dégg sax Pape Ndiaye wax. moom mm. daal cas social bi moo ëpp ñu koy sant di ko gërëm amuñu fayam yàlla nañu dund daal ba koy teral. léegi lan ngay wax ñi lay seetaan pour ñu ñëw jàppale ko dimbali ko. waaw ni may seetaan maa ngi wax maa ngi lancé appel ñëpp pour ñu ñëw jàpp si centre bi te xam ne ñun liggéey moo ñu tax a jóg. ay xale ngeen. ay xale lañ te mënoon nañu defi leneen. Mm-hmm. mais liggéey rek moo ñu tax a jóg. Mm-hmm. ñu ngi ñaan yaar ñu ngi ñaan daal ñu ñëw jàppale ñu si wàllu matériel. Mm-hmm. ak yëpp daal. waaw parce que soxla nañ ko. waaye na ngeen sonal seen bopp de ndax euh, dégg naa Pape di wax sànq neen da ngeen di daal di dugg ci métier mi ba ci yàgg ngeen dem sëyi bàyyi fa liggéey bi. waaw loolu moom am na moom jigéen moom xam nga rek jàngam mën na jàng dem ba sori sax daari bàyyi dem yi wala dara mais si loo mën a nekk rek métier moom du yàqu. Mm. métier boo ko xasee ba mën moom. Mm. foo dem da ko yóbbaale. waaw loolu loolu loolu loolu am na. nuyu naa la. fay naa la yaa ngi am jàmm. lii sellal la wala ibaadu la ndax léegi damay gis xale jigéen yi dañuy créer seen musóor di ko def wala. waaw gis nga damay sellal nii rek. Ah, mm-hmm. waaw da ngay bëgg naa ko tamit eh, ñuy ñëw ci li nga xam ne moo nekk eh, wàllum programme bi. Mm-hmm. mais avant programme dafa am foo xam ne dañ koy dugg ak yow. Eh, lan ngay sentir ci métier couture bi nga xam ne yaa ngi koy def. waaw bi nag daf maa yàgg neex xam nga gis xam nga gars yi ci def lu nice pare ñu ci duggee ba tey ndax yàgg na wala yàggul non yàggul noonu bu ñu ñëwee ci Pape Ndiaye moom yàggul mais dugg naa atelier pare ma jógee atelier ñëw ci centre bi. Mhm. lan ngay wax parents yi nga xam ne ñoo leen di seetaan pour ñu ñëw si seen doom. waaw parents yi nag li ma leen di wax mooy ñu jàppale seen doom yi pour ñu dugg ci métier parce que métier tailleur moom macha allah. Mhm. ah waxal ak ñoom rek waxal ak ñoom dëgg neexu ñu daal di wuyu si daal di ñëw euh, ñu ñëw xool li nga xam ne yéen a koy def te euh, Pape nee na yéen a ngi préparé fête bu rëy macha allah waaye El Vision yi nga xam ne dañ fay wàcc daal di fël daal di fëlaale ndax su boobaa sax da may ñaw robb rek ma daal di fëlaale dëgg neexul. amul benn problème. Ah. en tout cas ñu ngi woo ñëpp ñu mhm. li nga xamante ne mooy centre bi am nañ nag programme. 17 mhm. bi dimanche bi di ñëw incha allah bu ci topp. macha allah dafa mel ni xale yi couple lañu gën a mun yàlla du la may lépp nag du la may euh, làmmiñ bi di dagg loxo bi di dagg lii laa lay indiloon si sama plateau di émission boo xam ne mooy émission yow yaay kan nee na la saa ne rek nii laa koy defee di leen joxutaan ci poxutaan rek muy neex ci bu muy moom di leen tàggatoo ci beneen émission ak keneen ba beneen yoon jaajëf